Rewmi 24 TV. mi ngoog kooku mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw rek ba mu defee bi le message à la nation la ci gën a important nag ñëw na ci pàcc yu bëree bëri waaye la ci nit ñi gën a gën ci leen ci neex mooy. alal ji nga xamante ne rek alalu sénégalais yi ca ñenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci pouvoir bi sàcc ko jamono yi pare nañu rek pour récupérer joojee la alal mu doon ay cadre yoo xam ne kii di euh, son excellence monsieur tamit monsieur Bassirou moom moo ko yëkkati mu mel ne ñu bari fi mu toll nii rek waa jël jël numéro OFNAC yi ngir rek mën a feeñal yi la sàcc ngir ñu mën leen a nangu seen alal jooju delloowaat ko askanu Sénégal kon mu mel ne message bi bari na ñoo xam ne fi mu toll nii ñi nga xam nañ alalu léwul ci xaalisu Sénégal ci nag nguur gi fi nekkoon mu mel ne kon euh, fi mu toll nii askan bi yëpp rek la ñuy wax mooy képp koo xamante ne rek gis nga ab sàcc numéro yaay ngoog nga daal di kay woo ñi nga xamante ne rek moom mooy waaw of nag mi ngoo ko numéro yooyu la ñu joxe ni ki tey jii ka def loolu nag mooy site bu mag bi ñuy woowee xalaat TV nag moom gis ngeen rek moom moo def boobee la message daal di joxe rek boobee la adresse email di wax ne rek numéro yaa ngoog ku feeñal sàcc euh, mën nga ko contacter fii ci nu mu gën a gaawee